kon moyen yi rek moo doon loolu jàll dañuy ñëw incha allah ci ñaari moyen bi والهوية السوفيتية ليكون غدا من من السالم غداء ومتقدم في جميع العلوم بالتمييز بين الحق والباطل حتى يستريح من هذه الدعوات. أيها الإخوة الأفاضل لا yau ba lere Maria loolu léeg-léeg pexem seytaan la waaye pexe bu ma si mukk ndax su loolu kenn mi ngi wax ci xamaa ni kenn ñi inna kayda seytaane kaana da'iifa tubaab yi ñu ngi si réew mi dafa yoroon ay yi ni yàlla ni am ñam ñam xel bu seen li nga yor lan la na shehe Ahmad Bamba Abdoulaye Ndeye Salaam moo ko dugg ca daara ja daan jàngale ba tax ñi mu doon jàngal sax dañu doon bëgg mu doon doon jàngal ndax man ma doon jàngale moom Cheikhul Khadim na muslim la woon jëkkër soxna Diarra Bousso moo ko ci gàllankoor bokk na ci ay réalisation moom Seexul Xadiim mooy sos bi mu sos tariixa muriidiyya fee ca Mbàkke Kajoor tamit tariixa bu rëy ca lay wax naan diinu siwaa islaami bi laa yuhmadu inda al-ijaabi wa bihi ya'ni bil Mustafaa Tuubaa man maa ngi leen ko neex bu doy xam ne la ñu léegi tàmbalee ko ci fan yu am xam ne ñoom ñu dund te loolu gis naa

Thank you.